nuyu naan la kilifa yi. fay naa la tur la. papa. papa bu booy ñaa. waaw papa papa papa tey na lay waajal la treize bis bi. ah bis moom ñoo ngi koy waajal. waaw di ñaan yàlla yàlla may ñu nam bu baax quoi ci kaw la dëgg waaw mais daal lu mu laaj daal dinañ ko def bu neexee yàlla. boo ñaatee loolu nga ko ci kaw la dëgg day xeex wala day bëri. na ñëw dina xeex dina bëri. waaw bu neexee yàlla. la dëgg moo ko ëpp doole. loolu ay wax la la dëgg mag la. waaw de boobu xale bu ndaw la. te bu neexee yàlla moom jàpp na Lac de si suuf. d'accord ngeen Lac de Guiers mooy ponseur de Walo wala Boy Niang mooy ponseur de la nee wax tey supporters yi nga xamante ne pour violence fi moom ça dépasse waa lu ñu indi ñu ñu indi lu ko waaw waaw wàllum violence bu nga ko jëlee teg si suuf ñu jël lépp teg suuf bu ñu bëggee nag indi nag xam nga jàmm jeeg ambiance ñoo la ko dàq lépp lu ñu bëgg daal fii la fekk baax. jaajëf waaw jaajëf bëgg naa fii fii ma fii laa Boy Niang bi yaa ngi gis gars yi ñoom Eumeu Sène fii la ñoo far Eumeu Sène yokk fa Boy Niang bi fële Ama Baldé fii may Pikine Pikine itam fii may Pikine Ndaalane fii lañ nekk Boy Niang fii may ko ñam mu war a bëreeg Lac de Guiers mooy bis bu rëy boobu mooy le treize xam nga le treize Modou naa loolu du yomb loolu lamb ju réel diggante Lac de Guiers Boy ku juum daanu. grand nuyu naa la naa la baax. tur la Khalifa bu Boy loolu waaw ñu ngi koy pare si jàmm rek. waaw ñu ñaan suñu mbër mi yàlla ko yàlla may ndam waaw. tey bala ni conseil boo ñëwaat ci kaw la dëgg lan nga koy conseil. Ah, mu taxaw rek. mu taxaw rek waaw dëgg si tàngam moom waaw. mais ñaari taxawkat bu ñoom ñaar bu ñu taxee est-ce que combat bi dina sotti. non combat bi si kàttanu boo ñaar da koy daan. billaahi combat bi du ma si niil sax. si kàttanu la yàlla boo ñaar da koy daan. nuyu naa la kilifa bi. waa grand ñi ngi lay fay. di la wax la. man Abdou Mbaar mi waaw fii mooy Mbaar mi. fii mooy Mbaaru Boy Niang bi waaw fii mooy Mbaaru Boy Niang bi. ñu ñëw si Mbaar ji si Fatou Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang. fii c'est universel. dëgg la c'est universel Mbaar mi. Mhm. waaw kon tey yéen ñoo xam ne yéen magu Pikine fi mu ne nii di diriger xale yi doo leen wax xale yi si jouru làmb ji la gër Boy Niang. bon xale yi moom yeesal rek. Mhm. yeesalaat rek. ndax làmb ji moom euh, bu amee violence fépp lay méttee. Mhm. mbër mi mën na ko bañ a yëg mais après bu paree dina dox lépp léegi kon liñ leen di conseillé mooy ñu. dal jàmm daal waaw. tey loolu conseil boo ñaa ci kaw la dëgër. conseil bi moom mat na ba pare. Hmm. application la rek. lan la war a bëre. bon bëre bi moom du jeex. Hmm. bu arbitre bi sifflé daal vraiment dinañ def suñu lecture. Hmm. indi suñu tactique suñu technique ñaan yàlla mu may ñu ndam. waaw biir communication boo ñaa ñu ngi dégg ne day xeex ci biir lam saa bu waxee boo xoolee ne la dëgër damay xeex ak yow est-ce que bu xeexee dina ko arranger. waaw dina am na dóor lépp am na quoi mais liy mujj mooy bëri mooy mujj bëri mooy mujj yàlla ñu yàlla may ndam rek. loo ne. waay sant rek. ñu naa la fii la ëppee. tur la. tur bi Omar la Omar Omar Gueye waaw. Omar Gueye borom mbaar bi. waaw borom mbaar bi yaa ngi teg lu suba teel gi nii rek. waaj lamb ji rek mën na yàgg na. la la gër boo ñaa. neex na de. Ah. dina neex trop. la tërës su muy méttee. géejawaay. géejawaay duñ leen dara. Ah. tous duñ leen ko may. boo ñaan nee damay xeex damay bëri. dañ koy gëm ndaanaan la ci digg géew gi bu arbitre nu mu aajowoo rek doo koy def bu aajowoo ñu xeex day dépendre ci Lac de Guiers bu aajowoo ñu bëre day dépendre ci moom. Lac de Guiers dama feccal fecc bi ma ñëw daan la. ah day wax rek xalaatam lay wax rek buñ ko jàppee moo xam ne lépp dëgg la doole doxul jàmm lak mënuñoo téye du ñu yàqal. Lac de Guiers nee na waa Pikine bu ñu yéexee duñ dugg day waaye stade bi. ñu dugg ñun ah lay wax rek. ñun dañ koy dañ mooy mooy moo ñuy fekk dañ koy dalal waaw bu ñëwee damay ragal ne benn Ndiaga njaay la fay andi de waaw benn Ndiaga Ndiaye la fay andi de ñu defaral ko. lay wax supporter si hmm. dal jàpp ma rek ñun moom xam nga kenn xamewuñu violence comme ñun ñooy ambassadeur non violence dañuy ñëw rek xam nga sañ fe lu rafet toog seetaan sunu mbër daan ko ñu yëkkati ko akulaat ko ne ko su amaatee combat yàlla may ko ndam duñu xeex. duñu duñu histoire. yéen ñi nga xamante ne yéen jigéenu Boy Niang si wàllum togg beeg lekk mobilisation Pikine te loolu ma ciy wax tey. waaw lépp doy na macha allah xale bi nga xam ne dafa pare. booy Niang càppaa coli doomu meer ànd fekk ak dégul lu mu def day yomb ñun lam rek la am. affaire bi dañ koy tegaar division la rek. Boy ñaa daan na ba pare dañ koy tegaar nii rek bu subaak jàmm incha allah. fa leen teg ni daan la dëgër ba pare. daan nañ ko ba pare ndax la dëgër daw rek la fi nekkee ñun kenn kuy daw. ñun fu nekk nii buñ paree ci la de ci mbër mu mag ma lañ jëm. kan la ci muy Balla moom na jël temps rek pare te xam ne buñ paree ci gone gi cappaaculi day dem kenn du ko macha allah suba heure bi fi dina mel ni tol. dina mel ni bomb booy ñaa fi day wàcc booy ñaa pare na lii redivision la rek dañ koy tegaat nii rek dañ koy waxtaane nii rek mais pare na bu yàgg xale yi seen si wàllum violence diggante Pikine Guédiawaye lamb yàgg dox seen diggante violence bi moom dañoo ne lépp la paix rek nañ def jàmm rek dem ci jàmm ñibbisi si jàmm pare na ñëpp ñëw nañ ñu dal def ndànk bëre ko mu jeex ñu ñëw feete suñu victoire macha allah. maanaam suba suba dina mel ne ñambaalu Dakar. ñambaalu Dakar ndaw saf gu bëri ñëw. wala xëy Sadji sama weex. woote la di préparer suba. non violence amul xuloo amul xeex dañuy dem xoolaat jël suñu victoire ndànk. Mhm. ñibbi si waa ndànk feete ko ba mu bëri doole. wàllum añ yi nag fa démb suba doo si taxawee suba wàllum lekk beeg naan bi. incha allah maa la wax lii mhm. ku ñëw di nga lekk di nga naan mhm. añi dina teel a pare xale teel a jël. xoolal ku yéex nag doo am place. ah waa gi nañ ñun waaye stade bi suba. ñun midi dina fekk ñu añ ba dem xoolal njóoba mu booy ñaawa ngi nii suñu drapeau baa ngi nii talala suñu drapeau bi yow ba mu bëri doole talala suñu drapeau bi tàll la suñu drapeau bi nii. mafia boo baa ngi nii. ma ñëw boo ñaa. mafia baa yaa ngi gis gars yi. Ah. waaw waaw waaw. rek daan. waaw rek amul leneen. jàpp rek daan. boo ñaa. waaw amul leneen. boo ñaa rek waaw. sirëb yëpp kay mbaa sirëb yëpp boo rek. waaw daan rek boo dem ñibbi jël ndam li yaa ma gën a xam. 100 pour cent pikinité bi. waaw pikinité bi yaa ma gën a xam. du yomb de bëre bii du yomb ñu la. dégg nga loolu. maa ngi leen di jaajëfal. daa ma jël ko. yaa indi drapeau bi yow yaa mafia bi yow. waaw ñu ñooy mafia booy ñaar bi du ay. fo loolu la ñu waajal stade suba yéen. ma ne la midi pile ñu ngi waa géej waaye bu ñu xefee duñu am fuñ toog. waaw géej ñun ñooy stade bi la ma ne la ñun pare nañ géej waaye mënul fees stade bi Pikine moo moom stade bi te incha allah ñoo koy feesal ci kàttanu yàlla gunge ko yàlla may ñu victoire parce que lu ñuy def dañuy jël yàlla suñu borom ndax mooy maye mooy xañee dañuy ñaan yàlla may victoire mu jig ñu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam te dañ koy bi la ñu wax déretu suñu bula ci kàttanu suñu borom dañ koy daan ñëw Lac de bu xeexee ñu duma ko bu bëre daan ko Boy Niang moo gën a nekk xale moo ëpp doole moo dàq bëre waaw loolu la rek amul leneen. mais boo xoolee la guerre nee na magewul Boy Niang lu mot 5 ans nee na 2 ans la koy mage wala 1 an. Boy Niang la guerre di nekk di toj làmb ji boobu Boy Niang li sa caaro yi li lijjanti BFM ak ay ay yi kenn xamul mhm. donc yooyu yëpp jaru wax xam nañ ko ko ngemb moom lañ soxla. waaw ki ko ngem moom la kan mooy ngem la dëgg saa yi kan la mooy dëj dëpp gi benn ci des demi final la demi final la bu ñu ko daanee Balla Gaye numéro 2 Balla daan na ko ñaari yoon dootul bëre moom boo ñaa la koy paas boo ñaa defal ko affaire affaire bi loolu la wax ji mooy uh-huh. boo ñaa ngi nogatu waa géej waaye amaa ngi nogatu waa parcelle uh-huh. Eumeu Sène nogatuñu ci des lamb ji Pikine la jeex na suba rek ñu dem jàpp ko daan ko ñibbi incha allah non violence tamit non violence ñaan day teg baraada combat bi du yàgg ay seconde ñu na ah? combat bi di suba la treize. looy wax tey la dëgg ak looy wax boo ñaatee. baax na baax na bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi salaatu wasalaam ñu ngi ñaan jàmm ba pare supporters dinañ def jàmm ñi nga xamee si ñooy mbëri tamit nañ def jàmm ñun jàmm lañ bëgg ci réew mi comprendre affaire bi du dem ci beneen dëkk ci senegal rek lay nekk ñaar ñu koy bëre ay doomi senegal lañ kon nañ def jàmm wax jàmm que le maa lay jaajëfal jaajëf sa wàll jaajëf lu ñuy ndee saat xanaa di ñaanal booy ñaar rek ñëw ah, ak xéewal di ko ñaanal xeewal di ko ñaanal eh, ndam di daal yàlla ñëw tam jik ko rek yal na ko yàlla defal xeewal ñun loolu lañ koy ñaanal yal na ko sama borom defal xeewal suba xale si wàllum violence stade bi diggante Pikine Guédiawaye loolu moom ànduma ci loolu moom ànduma ci moom loolu moom buñ ko xalaat sa def ndax ki ki leen ki leen tax a jog kooku ci ci ci ci ci kii daal ah, ci dëggu daal lay def ak ci jàmm ak ci salaam kon nag ñoom bu ñëwee rek nañ dox doxu jàmm ak salaam waaw. maa lay jaajëfal yaay waaw kay jërëjëf waay <laughs> jërëjëf. nga de xanaa kontaan rek yéen it yal na leen yàlla defal jàmm ci doole yonente bi ñu ne ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla indi ndam fii ci suñu koñ bii mu nekk ndam bu sedd guy guy guy guy ndax booy ñaa ku nekk ku ko gis rek xam ne gune gu yaru la ku baax la ñu ngi ñaan waa koñ bi ak waa Pikine nañu tey bu ñu teeyee incha allah fii la ndam li jëm yal na yàlla def jàmm. jërëjëf yaay ñu ñaanal ñëpp jàmm waaw ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm yal na yàlla indi xéewal. tey saa moom mi ngi dox ndànk-ndànk nii quoi waaw ndànk-ndànk quoi ah. waaw. daa mel si bénéfice wu jaaykat bi si bénéfice wu keneen si bénéfice wu. waaw laab moom macha allah moom kay neex na trop moom neex moom kay ñëpp ñëpp ñëpp jar ñu quoi waaw. ñaari gerte moom xaw ma ko sax ah, jaay. non xaw ma jaay. kase. boo ñaari nga faral. Mbër naa la ziar si loo fay na la ñu ngi si jàmm baax a baax a baax. ñëw la jour ji may un combat la de guerre booy ñaa. waaw instant moom dara desatul moom wax dëgg fa moom luñ doon waaj waaj nañ ko luñ doon pare pare nañ ko. échange dañuy xaar jour bu jot ak incha allah rabi yàlla may ñu dem si cadre Seydina Mouhamed ko wax. combat bi loolu na wax tey boo ñaar si wàllu mobilisation si combat bi. non mbër échange moom xam na mu demee na lépp nu mu demee moom jarul sax ñu koy conseillé billaahi xam na sax xam na lépp xam daal nañ ko bàyyi lépp ba jour ba daal moom yàlla may ko wér gi yaram ak tawféex bu ñëw def li nga xam ne moom la tey ji wàllam di lépp bëgg incha allah rabi. xeex bi ñuy wax boo dina xeex wala day bëri non làmb lañ wax moom làmb moom am na xeex am na bëre mun na jeexee ci bëre mun na jeexee ci xeex wax dëgg fa moom làmb la moom da ngay làmb daj rek bañu si dara nag lu mu indi rek ñun pare nañ na génn ne ko maa la doole. waaye na jël lépp nag ëpp doole ëpp gàllaaj ëpp mbisik tout moom moom na jël lépp daal ba jour ba rek bu jour ba dana xam lépp la incha allah. suuf si ñëw nga la ñibbi. day lay yàgg a bëggalee waa supporteram nii laay def lii laay def bu ñëwee malas waay def fi leneen loo xam ne kenn xamu ko na bañ a ñëw daal bañ a teg kaasu ataaya rek comme ni ko gars yi waxee waaw moom day ñëw teg li wala deuxième troisième waaw moom daal na ñëw daal jël kaas fonde yi dem ñoram waaw loolu daal mooy aar bi daal. maa lay fa réew nekk. jo nuyu ma ne. fay naa la. maa ngi am jàmm. ñu am jàmm bu baax. ñu de guerre a def daal ko ñu ngi toog di xaar waaw. la da ngeen ne waa Pikine bu yéex a mu nooyee bi. Ah, ay wax la rek ñun ñoo ko gën a jege stade bi ñun heure bi dina fekk stade fees del day wax rek waxam bëgg-bëggam la wax rek mais bis bu subaa mu xam ne lépp dëgg la waaw. tey loo wax supporteru Pikine ci wàllu mobilisation bi wàllum violence affaire yooyu noonu. waaw ànd ak dal rek ak yar ak teggin ñun loolu loolu rek lañ soxla gars yi nag ñoom dañuy ñëw di mbuboo Pikine fekk ñiy def ak mooy loolu mais fekk na ñi dëkk Pikine ñoom xamuñu xeex xamuñu xuloo ñun jàmm rek lañ xam te moom la ñuy yóbbu stade incha allahu rabbi daan ñibbi. boo ñaa day bëre wala day xeex. lépp. lépp lañ pare. lépp leen pare ñun manqué wuñ dara daal ñun lépp leen pare lu mu indi rek fekk ñu foofu waaw. maa lay jaajëf jaajëf jaajëf nga ne. ma ne bëre bi nañoo naan ci fondé bi rek. bu ñu yàggal quoi lu mu gaaw xem nañ ko xam na ñun dañoo bëgg balaa 19h30 boo ñaar libéré ñu dem ñibi parce que Lac dañ koy suuxlu rek moom chaque jour parce que Balla Gaye daa ngemb raxam ñu daan ko mu ne tey day ngembaat doomu ndeyam mais heure bu ñëwee ñu daan ko si kàttanu yàlla. fonde Balla Gaye dina si naan Lac de Guiers naan si Aziz Ndiaye barki yàlla. mais ok daj nga ma. le treize yoo ko moom de le treize suñu bis la loolu xam nañ ko. dañu gis combat bi ki ko tëgg Guédiawaye la dëkk ki ñu la dëkk ki bëre xam na maanaam xam na maanaam am na yenn yoo xam ne yàlla du ko seedaan yoo xam yàlla du ko seedaan boo ñaar lay àndal incha si kattanu yàlla yàlla lu muy maye bu ko nangul rek Lac de Guiers balaa 19h40 ma daan ko. yow supporter la wax gars yi foofu tey. lan gars yi lan suba si kattanu yàlla nañ teel a ñëw mobiliser ñu ànd dem stade waa gédé gi xam ne awa kafe gi ñëpp ñëw ñu ànd dem stade dox ba stade la ñuy def suba. dal jàmm loolu mos a gis dox ba stade dugal suñu mbër jaa syndicat dañuy buuñu màdd buuñu xaal toll ñambaan ko ba mu saf dox si stade bi ko lekk parce que jaajëf këram waaw mbaayam jàmba waaw ñu ngi sant yàlla bu baax suba loolu waajal suba mbër waaw ci kàttanu yàlla ndam rek waaw ndam rek baak Sëñ Fall ndam rek waaw ñun moom pare nañ waaw sutura euh, ak dal jàmm rek la ñuy ñaan waaw mais ñun daal pare nañ côté yëpp daal waaw curxu curxu daal la ñuy wax bu jeexee rek jeex ah, mais ñu xool combat bi bëri na coow bëri na ay problème diggante Pikine Guédiawaye xam nga chaque jour ak problème ñun ñun Pikine rek moo ñu intéressé ñun suñu bopp rek moo ñu intéressé waaw fii ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay suñu grand frère yëpp fi toog xam nga suñuy booy ñoo nekk ñun suñu bopp daal moo ñu ñor Guédiawaye Pikine ñun loolu duñ ci wax ñun ay xale lañ xam ñun loolu suñu yoon nekk si ñun loolu duñ ko sax mais en tout ñun booy yi moom ñun benn benn maanaam benn kaddu la daal waaw déggoo nañ fépp xam nga ànd nañ fépp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw le treize nag ci kàttanu yàlla ñuy ñaan yàlla yàlla moo yor ndam si barke sëñ Fall yàlla ñu ko yàlla defal waaw yàlla ñu ko yàlla may xam neex Pikine yëngu am lu ma la wax waaw ñun mooy moom lañ bëgg daal waaw moom lañ bëgg daal mais pare nañ daal waaw pare nañ daal waaw yaa ma gën a xam yaa ma gën a xam. maa ngi lay jaajëf incha allah jaajëf Baye. jaajëf Baye. acca yow. ko waxee rek. chaque jour macha allah ñun combat moo ñu fi indi te am na benn surprise bu rëy bu ma leen war a wax gis nga tey fii day wàcc parce que xam nga xontin xontin xontin rek ñu indi ay bagage jëlee ko Gambie indi ko fii di yëngal tey fii tey lu leen am fii tey tey égéré mooy am égéré boobu moo la ñuy njëkk tasaare après xontin ñëw ñu konkuram bi ngeen tardé fii fii day wàcc laa wax tey fii day wàcc ñun combat bi dañ koy teel a dund ñun tey la ñuy commencé jëm suba jëm ginnaaw suba incha allah jaajëf ko waaw dafa leer. yaa ngi xëy di yéese seconde bi de la séeréer di préparer combat suba. suba loolu la ñuy waajal la de guerre. yéen waa ba Gambie. ñu dóor ko daan ko rek ñibbi si Gambie yóbbu ndam kontaan rek. loolu yow ma ne dóor ko daan ko ñibbi si. waaw waaw. moom dem tëral rek jooy. waaw. bi violence bi loolu la si wax ba ñëw nañ. dama si dama si waxal waxal. waxal li nga dégg. xanaa dañ kontaan rek. ñëw nañ si jaama ak mboolo bi feesal nañ ah van bi ay boos bi ba mu fees bañ teg ay bidon. ñuy xëju si biir moto bi sax nit booy ñaa moo ñu ko jaral jógee ba Gambie ñëw fii ñëw dóor kii la dëgër ñibbi Gambie loolu rek lañ ñu ut. te looy wax Gambie yi nag Gambie di seen combat la dëgër wax foofu ñoom. ndam rek dañu ko gars yi rek. maa ngi lay jaajëf yow nga ne. ça metti na méttiwul si yoon bi. ah métti na méttiwul ndaxte Boy Niang moo ñu ko jaral pour jógee Gambie ñëw ba fii alhamdulilah ñun ñu kay ñu ngi ñaan yàlla yàlla mel ñu ndamu sedd guy ñu dem salbire ko Gambia parce que buñ doon ñëw ku nekk booy la dageen la dageen waaye soobee yàlla boo ñaareel di bër boo xam ne du dellu gannaaw ci kanam rek lay dem ci kaw ci kanam rek yàlla ñu yàlla may ndam mu sedd guy ñu dem ñibbi Gambie dem salbire ko foofu tey nag su guddi dañ fi organise egere xam naa yéen a xam la luy egere egere mooy maanaam hontin uh-huh. waaye dañoo takka beneen façon la daal benn mbër am génne ngu ko si télé bi ñu ñëwee Force Mbod ñu ko indi Sénégal. bis bu ko indi Sénégal indi ko booy Niang. waaw nit Boy Niang daf ñu ko jaral moo tax waaw. maa ngi lay jaajëfal. waaw merci beaucoup. Modou fii la mafia Gambie nekk fii Gambie yaa nii fan si club Boy Niang Gambie fii la nekk ñoo tey ñoo waaj benn bis bu mu muy xaw ma xonte xaw ma.